bokki jullit yi bokki Sénégal bokki bitim réew ñoo ngi toog fii ci xadaratu Cheikh Abi Mouhamed Kunta ci kappaaru suñu kilifa di way jur ci famille bi jëmale ko ci njaboot gi jëmale ko itam ci réew mi kàddu nuyoo boo xam ni doore nañ ko aaya alquran bi nga xam ni yàlla wax na ko muy junj nag weer wii ak bés bi ñu dëgmal muy bés boo xam ni nisfu chaabaan lañu ko tudde mu war a am insha taala ci fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu sëriñ bi di ndokkeel Sénégal gépp di ndokkeel itam nawleem yi nga xam ni ñoom la bokk réew mi di ñaan yàlla ci barke weer wii li nga xam ni moo jaaxal njaboot gi di askanu Sénégal ñu toog ci toogaay boo xam ni toogaayu tiitaange la ak jaaxle yàlla mi nga xam ni lu mu dàq mu dàqu lu mu woyofal mu woyof yal na yàlla dàq tiitaange ji te woyofal jafe-jafe yi ba Sénégal ak Sénégalais yi dund ci ni nga xam ni noonu la ñu baaxoo woon ba egsi fi muy wax joo xam ni wax ju gàtt lay doon incha allah waxtu wi daaw bi nga xamee ni itam yàlla nattoo nañu mbas mi bi ñu egsee dëkk man ci ziyaara général bi nga xam ni moom lañu waroon a def ci fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu ren mu war a tombe ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mars ci situation bi nga xam ni moom la réew mi di dund ak àdduna bi contexte bi nga xam ni moo xew ak jalti jalti yi sëriñ bi waxoon ni dafay ñaan njaboot gi di njabootu boppam muy kunta yëpp ak njabootu taalibe yi ak njabootu réew mi ñi nga xam ni ñoo daan ñëw di fekk ci bés boobu di bokk ci ñaan gi ne ren de insha allahu taala ni ñu ko fas yéene defe moo di dañuy wàcce ay kaamilu alquran yamale ko itam ci njaboot gi ba képp koo xam ni itam bokk nga ci njaboot gi moo xam njabootu deret nga moo xam njabootu taalibe nga muy njabootu maana fa nga nekk la nga ca defoon daaw ci ay ñaan ak ci jàng alquran nga toog fa def ko muy weer wu am solo ma am lu ma ci junjoon léegi soo ko dee wax ci arab chaaban la tudd Chaabaan nag juróomi araf la li mu ëmb bu ñu ko déggee tey jëfe ko waxuma la Sénégal waaye réew mi yëpp dana am jàmm Chine gi ci jëkk moo di ak kawe la nit nag mënta kawe ci wàllu yàlla àddina mën a rafet ëllëgam mën a rafet te ëmbul jàmm day ëmb jàmm ëmb yërmande ëmb njariñ wàcce boppam boole boppam ak ñëpp ci lay mën a kawe muy benn ayin ga ca topp mooy uluw ak yëkkatiku lay doon nit mënta yëkkatiku ci ay nawleem te gënu leen jikko mënoo gën sa morom jikko te ëpploo ko yërmande ëppoo ko jàmm dang koy ëpp yërmande ëpp ko tolérance ëpp ko jàmm mën ko gën a kawe mën ko gën a yëkkatiku baaga ca topp mooy al birru mbaax mbaax nit su baaxee xolam day sell nit ku nit bu baaxee day yëkkay ci boppam ci lu ñaaw du ko jege du ko digle du ko fekke du ko def du dumbale ku koy def loolu mooy baa gi alif ga ca topp mooy fa lañ koy firee fa mooy miineel miineel boole sa boppam nit ñi ubbi sa xol tàllal say loxo ak say cër li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom loolu bu amee jaxasoo day daldi am bennoo day daldi am nun nga ca topp nag mooy leer loolu lépp su dajee ci nit ki daje ci société bi leer moo leen di guider fu ñu taxaw jàmm lay doon te jàmm fu mu nekk leer nekk su ko defee kon sëriñ bi ci boppam mu ngi ñaaxaat njaboot gi ñu yaraat làmmiñ yi nañu yaraat làmmiñ yi coow li bari na wax ju ñaaw ji jóg na te loolu Sénégal daawul dunde nii Sénégal li mu daan dunde mooy dëkku teranga la dëkku gor la dëkku nit ñu baax la dëkki pas-pas la kenn ku ci nekk da nga xool sa moroom respecté ko def ko comme ni nga def sa bopp doo ko wax lu ñaaw doo ko ko jëf waaye wax ji ñaaw na wax ji lëmbe na réew mi lëmbe àddina bi loolu sëriñ bi daal mu ngi ñaan nit ñi nañu yaraat seen làmmiñ te nag intere yi doomu aadama su ko bëggee jënde intérêt askan ni lëmm kooku war naa xoolaat boppam war naa xam ni kooku tekketul dara ci réew mi réew mi réewu jàmm la ñu bëgg rekk nag li nga xam ni ci la ñu nekk coow li bari lool ñëpp teg ci bët ñëpp jaaxle fan la ñu loolu sëriñ bi nee na daal mi ngi ñaan njaboot gi di ñaan askan wi di ñaan itam kilifa diine yi taxawaay bi rafet na waaye nañu yokk taxawaay bi ngir lépp njaboot la te njaboot gi yëpp ñoo leen njaboote bi ci des moo di rek programme bi nga xam ni moom la njaboot gi tëral muy comité gi bi nga xam ni ñoo daan saytu affaire mbiru ziyaara bi ñoom bu ñu xëyee incha allahu dinañu wàcce alquranul karim bu ñu demee ba nga xam ni alquran ji noppi na danañu door ay waxtaan fii ci jumaay ji waxtaan woo xam ni waxtaanu diine lay doon waxtaanu jàjj lay doon waxtaanu defaraatu lay doon ngir rek rafetal suñu diine ak suñu dëkkiin ci biir réew mi suñu demee nag ba ngoon ci guddi ga incha allahu taala danañu daje ngir jàng ñaan gi nga xam ni moom la ñuy ñaan ci diggu doomu weer wii guddik fukk ak juróom muy ñaanu nisfu shaabaan ci lañu koy ñaan ñu ngi ñaan yàlla itam nag waxtu woowu bu jotee eh, képp koo xam ne jullit nga te nga nekk ci réew mi nga bàyyi ci xel te xam ne ñaan googu bu la ci yàlla tombalee foo ko mën di dégg dawal nga dem fekke ko ndax ñu war a juddu ci la leen di yàlla di programmer ñi war a dee ci lañ leen di programmer ñi war a am ci at mi ci lañ leen di programmer waaye ñi war a ñàkkit ci lañ leen di programmer ñuy ñaan yàlla nag mu boole ñu ci ñi nga xam ne dañoo texe boole ñu ci ñi nga xam ni seen xel dafa dal boole ñu ci ñi nga xam ni seen lislaam seen diine seen gëm yàlla dafa rafet waaye réew mi yal na ci yàlla def jàmm